vidéo yi ñu doon def muy gën a metti ah. dañ leen a wax ne dañ leen a wax ne projet bi pro loolu loolu loolu loolu euh, loolu ku fi ku fi jóg rek dañ laa may loxo quand même dañ laa may loxo mais booster bi gën mooy peuple Sénégal booster la peuple bi moo ko booster peuple bi ko booster peuple bi peuple bi moo ko booster waaye peuple bi ñi mu booster wut ay zéro virgule la leen jox ay nen waaw parce que parce que lii gàcce gi yëpp ñoom ñoo ko teg seen bopp parce que ñoom ñëpp bëgg nañoo wax dem ci plateau yi di wax mais bu ñu génnee luy wax parce que bu buñ jàkkaarloo yow nga leen poser question lu ñuy tontu lañ xamul te yéen yaru ngeen question yu bëri di leen ñoo ñu ngeen war a dem lijjanti mm-hmm. taaj yéen fii mm-hmm. mais mën mënatuñoo ñëw yéen ñun au moment au ñu venu dinañ dinañ ñëw ci mel ni waa APR. xëy na léegi ñu commencé. xëy na léegi ñu commencé génn parce que ah comme dañoo woote comme instant bi mënuñu mënuñu wax lu leer parce que dañoo <laughs> woote suba. waaw dañ bàyyi ba ba suba passé ñu xool la lu ñuy lu ñuy lu ñuy teg ci ci ci table bi soit après. le réunion dinañ def communiqué. taabal ji wala ñu def dara. taabal ji de amuñu ñu fa teg lu dul seeni dossier. alors alors euh, professeur. Mhm. avant ñuy terminer rek mën nañoo xaaraat à ce que li nga xam ne Euh, moy le président Ousmane le président Bassirou Diomaye Faye wala le premier ministre Ousmane Sonko dox ay tànki jam bañ taxawalat Yewwi Askan Wi. ñëpp mën a bokk ñoom euh, le euh, monsieur le maire. Barthélémy Diaz Diomaye président mo mo xew léegi. non légui xam nga dafa am lo xamante ne. yooyu bëriwul ay parti sax. Mhm. Mhm. Diomaye rek biñ koy lancer 107 la won moy biñi ñuy daje Radisson té mhm. yokkuwaat na. yow loolu moo xam nga loo loo loo am ci lo xamné bo boo xasee dépassé rek dépassé. te journalu journal moom journalu daaw Diomaye président moo xew. ay yeewi askan week yooyu yëpp jàll na. jàppale na leen may leen i député may leen i maire. nekk ñoom 1 pour cent mënuñu ko am ab député waruñu ko woon dañoo dox ci maay nu nit ñi di wane ne ñoom moom Dakar ndekete moomuñu dara ku gis li ñu am xam ne tey jii bu fekkoonte ne ay gor lañ. seen député yëpp dañ koy génnee jox ko Pastef. seen maire yëpp dañ koy génne jox ko Pastef. parce que ñun du ñu nekk ak nit. mu gañe ci suñu kaw war ñu ñu demal suñu yëfi bopp parce que tey ji boo xoolee tey ji eh, opposition bi li mu doon metti metti li ko gënoon a mettil li nu waa kër Khalifa Sall doon teg sax waa mm. APR teguñu ko ci wax ju ñaaw mm-hmm. boo xoolee ñuy wax wax ju ñaaw di partage ñëpp foofu lañ bokk léegi kooku naka ngay àndee mais professeur seetlu woo dara suñ kii GB waaw liñ ko fa defee rek bërët da ngaa gis ñu bu xëcc entrepreneur bi nekkoon na kii mu daal di jël fépp fat mhm. seetlu nga loolu. waaw moo am yi nga xam ne fa la ñoom Mimi doon gaare ak yooyu. dañ ko mujj fat dañ ko fat mi ngi ne xet nañ ko fi nii. waaw parce que ñoom ñoom moom moo koy def ñooñu nan ngay ànd ak ñoom. alors kon pare woo leen pour defaraat diggante Barthélémy Dias ak euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. non man gis nga ay diggante ay nit man loolu sama yoon nekku ci. mais ñun politique bi ñu politique ñun àndunu ak Barthélémy Dias tey àndunu ak moom tey parce que gëmuñu ko te mësuñu koo gëm. seen doom ndey la woon. non moom mooy moom mooy wax doomu ndey mais kenn mësta dégg Sonko naan ay doomu ndey moom mooy xëcc loolu parce que Sonko loolu ñuy wax xam ba da koy def xam nga koo xam ne danga koy woo di ko enregistré mu xam ne danga koy enregistré mu lay wax li nga bëgg a dégg kooku li mu doon def da koo ñeme moom dafa defe ne dafa. wóor Sonko góor sax du faral di wax doomu ndey. waaw. sama rakk lay wax la boo xoolee ay ci waaw non mais dëggantaan suñu culture góor du wax wax dëgg parce que moom affaire samp jeeg rek lay def. Mhm. affaire samp jeeg rek lay def. ay jëndal galaas naa nag mbaa xool yaa ngi féex ak. non mais dafa dafa nekk nit koo xam ne zéro stress lay dundale. non moo ëpp ñëpp. stress pression képp ci lay dox. amul ci lu mu doxul ci lu dul pression. parce que dafa yàkkamti àddunaam yàlla xam na ne dafa yàkkamti àddunaam parce que bu jaaroon ci ligne bi ko ko doon teg da ci am ndam. ba mu cay jaar de am na woon na waaw mais dafa dem ba yàgg mu jàpp ne moom téye na affaire yi nii mu jàpp ne mais moom dafa addunaam yëpp maire Dakar la woon. addunaam yëpp moo tax bi mu ci àggee mu ne amatuma kii la ma bëggoon am naa ko fekk àdduna weesu na meeru Dakar. Mhm. adduna romb na meeru Dakar. nit da war di xool ci li ci sa kanam. mais yéen est que nekkul tey jii benn signature sa position par rapport ak Ousmane Sonko ak li coow li xam ne doxoon na ci digganteem ak Abass Fall moo leen naqari tey ba tax ngeen ne jeex na. non non man loolu naqariwu ma. coow li doxoon ci Abass Fall moom yooyu seen problème mu mairie la. non mais xam nga loolu dès le début xamoon nañ ko xamoon nañ ñu parité la wax jigéen góor peut-être que li ñu nekkoon dans un dans dans dans ci ci même parti bi. moo tax bàyyi ci ñu woon xel mais xamoon nañ ni. professeur bi jigéen la parité te ñu woote. góor jigéen defar liste bu baax. maire bi. Mhm. dañ koo fal seetee ko ci adjoint yi. Mhm. mu doog a ñëw kii yi a ñëw ci biir. loolu boo ci toggee bu la neexee jël góor bu la neexee jël jigéen à partir de foofu mi ngi mel ni rek nga jël président bi comme assemblée nationale président bi dem ca kaw ba pare nga doo a ñëw ci yooyu mhm. léegi naa leen nangul mhm. liñ wax mhm. ñu ne loolu nangam mais boo demee ba war koo xañ mais ne waa Pastef andi leen ma seen jigéen voilà daal koy proposé ah, yow ñu xam la de ah kon da doon guerre. waaw kon kon da doon guerre ah, yéen nekkul guerre bi yéen a njëkk a guerre. waaw yéen yéen yéen yéen a njëkk a eh, Pastef ñoo njëkk a guerre surtout ci réseaux sociaux yi. Pastef ñoo njëkk a guerre ci réseaux sociaux yi. commencé tegal Barthélémy Diaz al al ci ci réseau yi naan ci tànki ci tànki la nekk. waa ah, waaw. waaw mais bu nit nekkee ci tànki woor doon na ko ci tànki woor nga nekk. bu ñu gisee ne kay mi ngi dem kër Amadou Sall lu guddi waaw di gisee. Ah. di dem di. Euh, dem ba pare doo ko woo Ousmane Sonko xalifa léegi la moo tax. xalifa la gën a tooñ xalifa daa ñeme wut rek. xalifa xalifa dégg daf koo ragal. xalifa la njëkk nga xanaa man moo tooñ xalifa. Ousmane Sonko ci naka moo tooñ xalifa bu moo tooñ xalifa. xalifa xam na màtti la la. xam na ko. ba bu mu waree tànn tànnee fam jëmul woon ci Bart ci Soham la gënoon a dem man mii di wax ak yow ci jamono ba waa kër Soham dañ maa woo jof ma kii bu baax ba ma nekk conseil damaa décliné ne ci candidat wu Yewwi laay dem àndi ma sant leen gërëm leen waaye bi Khalifa di laam-laam doon waaj a tànn kee sa waay sama doomu ndey moo taxaw fii ci terrain xaar yàlla ne kii laa xam ne buñ ko joxee maire Dakar du ko jaay Macky Sall du ko jaay ndege juum la moo tooñ xalifa xalifa waa ji dem ba ko doole gis nga bi muy wax naan grand bi naan Sonko kii euh, deux mille vingt neuf du mën a kiyaat comme ça ki moom boppam la doon kaasa te dafa bëgg bu taxawee deux mille dix neuf vingt neuf contrôler parti socialiste bu njëkk bi hmm. ak bii nekk ci kaw léegi xalifa mënatut a kaas parce que booy bi daa yor xaalis ba pare daa baadoo la bi ñuy sabootee miti mi yeeyu bi fii ay waa kër xalifa ñoo ci gën a ñàkk ñoo ci gën a ñàkk ñoo ci gën a sonn ci gën a ñàkk dañu taxaw seen groupe boo gisee dañ koy wax man am naa ci xel dañ la koy wax waa ji baal wala la nan ngay demee di gisi Macky Sall jékki-jékki woote naan gis naan waxoon naa dem ko ñaari kilifa yoo xam ne yow nangam yow yow kii mooy sa kilifa muy xalifa kii moo jiitee ko quoi euh, kii bi te moom nga wax sama doomu ndey ndax ma dem ak maa ngi dem lu lay wax ban moo ciy tàggoo daa am ndax ma dem ak maa ngi dem dara tënku ma Amina fii Amina waaye maa ngi dem de danga may téye Amina ndax ma dem ah ah ma sañoon nga toog de est-ce que boo demoon dara kii daal toog daal a gën loolu mooy ñaari laaj ah. mais maa ngi dem doon kilifa dem togg sa dil ba pare ñëw di leen rënde maafe ñoo lànk non moom xam nga dafa dafa dafa dafa àggoon foo xamante si nii dafa gëmloo woon ñoom ñaar ku nekk da nga gëmloo sa moroom benn affaire. Macky Sall da koo gëmloo ne Sonko du doon candidat ku bokk Pastef du doon candidat Barth gëmloo ne ko man rek maa man ci moom dara. Mhm. te fekk boobu xamul Sonko mais daa gëmoon ne moom rek moo man ci moom dara Khalifa Sall dafa am complexe Barthélemy Dias boo xoolee lu lu toll ne directeur de campagne mu koy jox Barthélemy Dias. peut amul compétence bi comme directeur de campagne da ngay xam réew mi. Barth xamul réew mi. bar Dakar kep la xam xamul fenn bu génnee fi day am problème day réer xamul réew mi mo tax amul dara ci réew mi ana fu mu ko jaay ci réew mi loolu wëral ko diko sampali tablo tablo bo romb khalifa di ko wutali liñ ko sampal ci ay tablo amu ko ci ay wa ak diko ko wutali non waaw di ko yokkal diaspora matu len 4 4 matu len 4 pour xam nga wax yoy moy waxi def kok wër ta doon directeur de campagne ko xamne ne sanni fi ci terrain bi xeer yaangi ñew ba sa auto ni di terrain ni nga yaakaar ne ak politique ak am ay voix mooy da ngay wut ay bandi jox leen sàngara ñu naan jox leen bon ñu naan nga jox leenu xaalis ne leen yàq leen meeting bi loolu mooy lool loolu mooy tax nga am dara doo am dara parce que politique boobu moom moo fi jeex même Macky Sall dafa am complexe ci de médias parce que boo waxee li ñu la naan la kooku wuyu lu quoi kat la lool daa gën a wuyu nit ñi dafa ëpp ay moyen nit ñi dong mais fi ñuy jaar ba defu wuyu ñëpp ko xam mais daa amul njariñ motax mom adunam addunaam da koo ti yak adunam mom nang maay wax gaay ne len na yaru ab signature ko fa ba mairie Dakar be ab signature kep mu jog fa na yaru wala mu joge fa bala yag ah yene ngi sampalati kenen du le la waxati yene déedéet manam ci sis ñak na sis laa la wax manam bu minister ko tege ci walum yor ñu sis sis lepp ci yoon. Mm-hmm, mm-hmm. bu ministre de la justice poste bi dañ ko koy jox. Mm-hmm. parce que lool la yoon wax ta bu boba bal du tàkk sagar du xeeñ dara du jib parce que yoon a ko wax kon nag na yaru te teg lépp ci ci ci yoon na teg lépp ci yoon comme dañ doon metti li yéene seen yéene dara normal lu ci dañ jéew a muñ mais yow yow yow kan mooy xalaat moom Barthélémy Dias mu contrôler mouvement Khalifa Sall bi ak ay parti socialiste loolu moom bu koy def ci boppam rek da ngay xam ni kii dof la dof la quoi vraiment moo tax moom xam na carrière politique am ni mu yàqoo moo gën a yéeme te amul droit nekkati candidat fii ci maire de bi parce que condamnation bi day dem ba deux mille vingt neuf. moom de moo ci gën a perte. moo ci gën a perte tey jii bu ñu nee élection yi am na doo dégg dossier am bu ñu nee élection député am na doo dégg dossier am kon ko fan la jëm fan la jëm ñun ñu ngi ñun ñu ngi dem te fii la taxawoon naan lu ngeen bokk ñi mënta bokk nañ gëm yàlla. Hmm. yow yaa mënta bokk. li mu doon wax lépp moo tax yéene néeg la borooma cay fanaan mhm. président Diomaye fay dafa amoon yéene ju rafet ci président Ousmane ko taxaw di ko kañ di ko mhm. tagg ci Kër mhm. Massar yaay suñu président yaay suñu candidat yéene jooju la ko yàlla fay tey mu doon président bi mais kii lim ñu doon waxal du ngeen bokk du ngeen doon nangam moom moo ko doonut moom loolu la ko yàlla fay kon li am solo moom mooy nit sooy ànd ak moom da ngay ko yéene lu baax. joomaay da koo yéene woon mu nekk njiitu réew. waaw far yéene yooyu dal joomaay. waaw ah kon de lu ko lu ko nit di yéene yàlla nay jàmm yàlla jàmm Ousmane Sonko loo ko yéene. man loo ko yéene rek yaa jiitu bu dee safaan yaa ci jiitu bu dee lu baax yaa ci jiitu te xoolal fi mu toll nii gars yi ni ñu doon jëfandoo ñëpp da ngay ku nekk naan lii laa doon def ci caay-caay ku nekk lam doon wax da koy def ni gars yi journaliste yi nga xam dañ doon wax sax dañu dóor ab directeur wala ministre pour mën a fay emploi sax toog seen plateau yi di ko wax naan nangam laa doon def allo allo allo yaa fi ne nangam nangam dóor ñu jox la xaalis nga dóor say nga jox say journaliste non tooñu ma loolooy dëgg parce que looloo fi am danañu wax lu Ahmed Aïdara doon wax ne Sonko cuuraayu dëmm la cuuraay ji la ñu yokk a siw ñoom ñëppay wax ku nekk la nga defoon da nga ko wax mu neex ak mu naqari boo koy wax te kenn du la ko laaj yaay waxal ko sa bopp incha allahu rabbi parce que kii yàlla moo moo ko tànn teg ko fi waaw yàlla moo ko tànn teg ko fi te loolu par cent ans lay am. par par cent par téeméeri at lay génn ku mel ne Sonko. seen cinquante ans yooyu ngeen di wax ne yéen a ko da ngeen koy xëy ba yow ngeen génn ci. cinquante ans yi xam mhm. dañoo toog. Mhm. mooy fekk moom dafa yàgg contre Sonko dem ba mu yàgg mu naan ñu toll nii nag man bu kii moom laay votel quoi ba mu yàgg mu ne du votel mujjul votel Diomaye ma naan ko yéen. bay ba ngeen muñ ma ne ko joomaay day toog cinq ans Sonko toog dix ans joomaay ñëwaat toogaat cinq ans ma ne ko loolu mooy leen vingt cinq ans mu ne ma ne ko peut-être ku mel ni Ngagne Demba Touré ñëw toogaat dix ans mu ne ma ne ko après sëñ Abdou ñëw toogaat kii xam nga luy sëñ mooy doomam doomam moom ci boppam. waaw sëñ Abdou ne ko kii patriote la <laughs> mu ne ko kuñ gañe ku perte mu ne Amadou Ba <laughs> yéen daal monarchie ngeen ngeen. day jàng eh. wax de. moo ne kuñ